ay fan rek élection présidentielle yi honorable Baye di gëna baral ay djégom ci permanence bi liggéey bu am solo la fay amal sa di dalal groupe yi sympathisants ak militants yi la koy amalé ni tay mu dalal quartier di ñom ñi ke takku ba dëgër lañu def est jappelé Amadou Ba ngir honorable Baye suñu koñ permanent ci permanence Baye ñun waa héliport ñoo lay xamal ne tey ñoo ngi ànd ak soxna ndeytaal ñi ngi ci sa ginnaaw ñi ngi ci sa côté ñi ngi ci sa gauche ñi ngi ci sa droite lépp loo xamante ne bii soxla ngoo ko ci wàllu électeur dinañ ci def suñ kattu laay kattan. am yaakaar ci moom moo am yaakaar ci yow ñi sàkku nag magam jëmu moo dagg ay yitteem yendu àll yor koor te ñi ñëpp ay mag lañ yaakaar na li ñuy wax buñ ñorut woon duñ bàyyi suñu yitteem ah, yor suñu koor ñëw yendu fii. ndax yàgg nañoo man Baba garaas laa dëkkan daan campagne di politique ba ñëw fii bàyyi woon naa politique mais kii sama lépp la man moo ma ñëw ni ma nañ dem te am na yaakaar ci yow kon yaakaar jin yàlla may ci yow yàlla bu mu tas. di wax euh, ñun moom ñu ngi fas yéene topp si ginnaawam rek sëñ yàlla fépp foo ñu jëmee daal ñoo nga fa jëm jox mañ la xol bi. jolo xatar bi fas anda ak yow sëyale la ba fa nga bëgg rek inshallah allah ñu dem fa yalla may ñu ndam fi fi ñu jëm. gannaaw ba ñom ñi kat ci seeni cadeau ñu daal di yëkëti ay doléance ndax xam leen ne seen quartier bi kat la manké bari na lool ci walum insécurité yi nga xamé ne ñoo ngi dëkk diko jankontel ñun daal suñu jafé jafé moom bari nak ñun fiñ toll jigéen ñi kèn amut gone yi kèn amatu ci téléphone boy rese sa téléphone dem marché ñu carlo la ndax ak lëndëm bu dee bëccëg ñu kar la bu dee guddee ñu kar la boo wàccee tali bi jëm kër ga bala ngaa yegg ñu kar la ndax ñàkk sécurité amuñu sécurité war na ñoo mën a am sécurité amuñu benn am amuñu làmp yi ne wër suñ mbedd yi suñ xale yi mënuñoo jàng guddi te xañ na lépp dina musa ba incha allah di waax ne ñu jàpp lañ suñu wàllu financement formé naa lu ma sept groupement pour si affaire financement yi am na yu ma jot déposé sax Euh, affaire mom dafa laaj moyen te amuñu moyen bi nak te yow lañ yaakaar nag ginnaaw yàlla yonent bi gar nga pour mu so bay Alla kon bay Alla Sylla ñi ngi lay talal loxo dila ñaan ne yow li nga xamanteni bi mom nga bëgg muy Amadou Ba jël réew mi yàlla na def waye nak bu ko defé ba bare na nga ñu gëstu ñun waa Taybatul Karim na nga xamne amna luñ soxla lu bare bare bare bare ndax koñ ba amna ay manquement honorable bay Alla Sylla daal ci taxaw dar dar ngir fasiyene ko lu ci melni éclairage ngir dakal insécurité bi nga xamé né ñu ngi dëkk diko jankontel ba ci ay financement alaykum yeen wa héliport ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tour ak seen sante di leen wax ne nak yeen yeen yalla dafa dogal li señ bi doon santaane yalla dogal na fi leen ko mëna défé defee si nu ñëw fi doon seen gan biñ ñëwé tam dalal nañu dalal bu bu neex waye nak ni ngeen waxe dafa melni politique bi yeen daw len ci yëngu ñun nak dañoo bëgg ngeen yëngu ci kom ñep ba ba dekk bi luy ñëwati ngeen di mëna jël seen walu comme ni ngeen ko waxe lolu nak dafa bokk ci fara tay ndax jot gi ginaaw dañ koy joxe te war ngeen ci am kon dañ leena wara top a ba ngeen ci man di am ndax bari na fi jigeen ñu xamé ay daaw ak daaw jéeg yëngu nañ financement yoy yaakaarun ñi dañ koy fay te matoon na 500000 groupement bu ci dëgër am nga 500000. te fayoo ko kon nag bu ngeen góorgóorloo ba lii nu jublu ngeen jàppale ne ci bañ mën a gañee yaakaar naa danañ fexe ba ngeen bokk ci financement yi lëndam gi moom wax ngeen nu ko fekk élection yi nag xat na xaw ma dana fi mën a sotti xaw ma man ci saa bopp daal dinaa fexe ba jënd ay lamp may leen photo yi nga xam ne am ngeen ko te amul ay lamp dinaa fexe man ba def ci lamp loolu moom xam naa ko li ci des nag mooy kon ñeñ ko waxee rek jarut guddal ndax ñeneen ñee gis ko ñoom man la ñuy xaar li def bëgg dal ngeen def ko bis ba ngeen fexé wat dañu indi carte bi ñi waté wan leen ko muy Amadou Ba dañu am ci mom yaakar degg na ngeen tuddu ndox mi aussi mom lim jëk wax li muñ taxaw soxla muy la de guerre bi bu toogee bala mëna am at dina ko indi kon yaakar na bu ngeen amé la de guerre dootu leen wax lu bari di ngeen am ndox mu neex leen ko jënd kon l'essentiel lim wax ñun ñoko ci mëna jappalé li señ bi bëgg itam buñ ko jappalé bam am li bëgg day melni ñuy no indil señ bi la de guerre kon loolu rek lañ leen son bis ba daal bu kenn soññ kenn kenn ku ne boo xëyee balaa naaj na nga xam ne da ngaa war a wate nga dem fexe teel a dem ñibbi sa kër toog loolu rek lañ leen di ñaan li ngeen wax lépp dégg naa ko dala yaas bi man du ma war damaa fas yéene dëkk ak yéen fii xëy na bu ngeen ma xamuti dégg ngeen ma fas nañ yéene daal li ngeen ñu sant liñ ci man danañ ko def ndaw ñi dégg nañ seen doléance li ñuy def nag tey dañuy yëkkati dara teg seen loxo ngeen tàmbale yéen ñëpp naka noonu waa gaar bu ndaw ñoom jigéen ñi ak xale yu góor yi daal di ñëw fas yéene dëgëral taxawaayam ci du Ba ànd cee confiance bu day sëkk. mooy ki nga xam ne mooy Baye Alla Sylla mi ndax dañ koo gis li nga xamante ni moo ko ñor mooy Sëñ Touba ki nga xamante ni moom la ñuy jàppale it li nga xamante ni moom la wax ci dëkk bi ne moom la fiy def. moo tax ñu ànd ak moom ndax ñun képp koo xamante ni Sëñ Tuubaa dalaa ñor dang ñuy ñor te xool nañ ba xam ne kii àndal mbirum sëñ bi ñor na ko te Baye Alla it ci loolu képp la nekk. ñuy wax Baye Alla ne ko ñun daal wax dëgg yàlla bi ñu xamante yow yàggut waaye liñ gis ci yow doy nañu doy nañu doy goo xam ne fi mu toll nii foo ñu joxañ rek foofa la dem rawatina nag biñ ñu fekkee ci suñu bëgg-bëgg muy Amadou Ba ak Macky Sall mi nga xam ne gis nañ fi mu jëlee réew mi ak fi ko yóbbu. aaju tàng na mais ñun ñëpp dinañ jug leen dañoo jóg te loolu yombut nit ku nekk sa am liñ bëgg nag mooy li ñu nii lu ko raw. moom lañ bëgg mobiliser incha allahu rabbi suur wote yi ñi fi andi ñëpp yor seen carte d'identité kër ga des na jour élection yi ñu dem woote ji massivement gañ incha rabbi loolu lañ bëgg te loolu lañ def incha allah. Amadou Ba lañ àndal tey ak suba ñoo dal ndax Macky ñun dañoo ne deful dara ci réew waaye ñun gis na ni mu def ci réew mi Macky ba mu toogee tali bi ilaa Touba bi da ngay ndekkee sa kër añe ji Dakar da nga daa xëy fii 5 heures ba guddi ngay egg Dakar léegi dëkk bi neex na Macky gàccaa ngaalaama Macky fi liggéey gisaguñ ku ko fi def wote bi ñu jëm nag ñun yow lan bëgg koo àndal moom la moom honorable daal xamle ni gaar bu ndaw jàpp ndindi donte du sonam waaye moom kat mooy milieu terrain bi jàpp na ne sax fu dëgëru rekk moom dafa fas yéene dugal loxaam ba ndam am foofu lee ndindi ñu ngi leen di nuyu bu baax di sant ndindi nag xëy na am na ku ko féete waaye ñun dafa am lu nga xam ne dañ koo féete woo woon loolu la ñuy dox dañoo wax ni Touba foofu waay nekk di politique te gisoo ci sa bopp ñun dinañ fexe ba nga gis sa bopp li li nu jublu dapat dafa am lu nga xamni Amadou Ba bi mu ñëwee la jëk a wax sëñ Mountakha dafa waxon ni dafa bëgg la de guerre ñu indi ko Touba bu joggé ci li mom lay def bi ñewé diou bi campagne Touba la ko ubbee dafa wax ni buñ ko falé bala fay am adina ni la de Guiers lolu amal na leen dariñ yeen jigen ñi su leen yalla dimbalé ba ngeen mëna am ndox mu neex di ca naan di ca sangu seen yaram yi changé di ngeen sant yalla boromam yaakaar naa bu defee li mu wax yéen a ñu ciy le ñun nag niñ man dinañ leen jàppale ba lu ñëwati da ci gis leen bopp moo xam ca zone ba la jógee moo xam ci man lay jógee dinañ leen jàppale daal bañ xam ne jàppale nañ leen waaye nag yëf yi sooy wut ku am carte d'identité bul xaar ko la boo xëyee na fexe rek ba xëy teel a dem man a wate lu ci war dinañ wax ak seexloo ñoom mi nii bu ko defee bu ñu amee wata ngeen mën a xëy teel a dem wata ji ni ma ko waxee dégg ngeen ko mm. Amadou Ba gor la ba mu nekk ci réew mi ba tey kenn déggalu ko dara bu fekkente ni dafa jëlee fi jàmbar wu mu jël kenn dégg ba tey yaa ngi dégg ñu di ko wax mosoo koo dégg ñu wax ko ci yoon wax mosoo dégg ñu wax ko ci lu doon nit la koog nag homme d'état la nekk na premier ministre jàng na réew mi xam na ko nekk na ministère de finance ministère de finance ak yeneen ak yeneen yaakaar naa li mu nekk ci réew mi boo ko xoolee dey mot juróomi juróomi ndomba yu bokkut kon xam na état nañ fexe ba jàppale ko liñ bëgg a am mu defal ñu ko ndoxum Tuubaa bu ñu ñu ko defalee lu ko gën mën taam kon nag ñi ngi leen sant di leen gërëm yëf yi dafa xat ñun nag dañuy tàmbali fasan yéen fasanteeg yéen coloré leen am danañ leen ko jox bu ngeen demee ngeen tàmbali balaa élection lin man lu am lu ñëw danañ fexe ba ñi jot ci ngeen jot mu don liguey bu am solo bu nga xamé ni honorable haut conseil des collectivités territoriales ala dialu mu amal jum ci élection présidentielle yi binga bi nga xamé ni ubbi woon permanence bu mag boobule te man nañu sax fofu moy dalwaayub wa APR bu Touba ñi ay am solo ci quartier honorable alinsile di xamlé ni bi lenn rek la muy am ndam lu yaatu ci dëkk bi di Touba.